xale yaa noonu ci diggi géew bi doomu yoof caatu montagne arbitre baa ngi laaj ay jugeem laaj na caatu yoof doomu yoof caatu montagne arbitre sifflé na doomu yoof moo ñu woon ginnaaw caatu montagne la ñu jàkkaar lool caatu montagne a ngay jat yoof nee na di ko déglu doomu Yoff Thiatou Montagne Thiatou Montagne ci moom doomu Yoff Thiatou Montagne doomu Yoff doomu Yoff ñu ngay ñoom ñaar doomu Yoff Thiatou Montagne Caatu Montagne dóor na léegi waaye dalul Doomu Yoof sànni na léegi Doomu Yoof Caatu Montagne eh eh Doomu Caatu Montagne dóor na ko moytu ma dóor ba da lay dóor te teq na ko caxabal Doomu eh Caatu Montagne lu muy def nii Doomu Yoof jël na Caatu Montagne Doomu Yoof jël na Caatu Montagne Doomu Yoof da ko bëgg a caxabal Caatu Montagne da ko bëgg a caxabal waaye Doomu Yoof dafa naan bëre ba romb Yoff Thiatou Montagne Thiatou Montagne ñu ngi koy manœuvrer Thiatou Montagne ñu ngi koy manœuvrer doomu Yoff Thiatou Montagne doomu ku ci nekk jàpp nga doomu Yoff Thiatou Montagne taxaw tegal loxo 16 génn nañu eh doomu Yoff Caatu Montagne doomu Yoff bañ na doomu Yoff bañ na nee ko du ma ci tëdd te du ma ca doomu Yoff am benn avertissement Caatu Montagne doomu Yoff doomu Yoff Caatu Montagne eh doomu Yoff doomu Yoff Caatu Montagne jël ay tul mbaa doomu daanu du ci am mbaa doomu daanu du ci am eh eh doomu yoof lu muy def nii doomu yoof caatu montagne doomu yoof caatu montagne doomu yoof jël na léegi benn doomu Yoff Thiatou Montagne caxabal na ko caxabal plaqué na ko plaqué da koy daan waaw waaw Thiatou Montagne plaqué na ko daw ak moom Thiatou Montagne daan na ko nee na ko sama bakkan laa ci oh, doomu Yoff doomu Yoff il n'est pas mérité doomu Yoff bëre nga bëre nga daan na daan bi oh làmb gi cey làmb xolal ma doomu Yoff la muy Caatu Montagne la muy def waaw Adama nañ dem ci tuus ba